waaw gis ngeen li nga xamante ni mooy mobilisation bi nga xamante ni waa Tëngéej def nañ ko Sonko woote woon nga muy roube national tey ci 20h ba 20h10 waa Tëngéej jóge nii mouvement bi ah gis nga gars yi ñoom ñëpp génn nañ barke yonent bi ah tey nag roube national la roube national la barke yonent bi waaw ndànk-ndànk rek. mu bëgg a wax ak sama jigéen bi moo ci leen tuuti eh. eh, na nga gisee roube national bi tey. sama mag la ñoo sama rakk la ñoo bëgg ndeyaa baay. noo gisee roube national bi. di nga Macky Sall. waa déglu leen rek. ku la jëlal. même moo xam Macky Sall. même moo xam Macky Sall. yaa ma jël. voilà. gars yi déglu leen. déglu. di nga Macky Sall. keroog bañ ko jëlee Fatick Fatick. indi ko Palais. sëñ bi nag boobu ba léegi jàmm amatu fi. yaa ngi dégg kon Macky Sall bañ na ko la. waaw ah, di yor na national bi di yor na national moo ci rompéen. ba léegi rek ma taxaw ak nga xamante ni mooy président Demba Seck tey ci mouvement bi nga xamante ni moom la Sonko woote mooy ànd ruube tànkal Macky te président tey nan nga gisee mobilisation bi waa Tëngéej def. une mobilisation exceptionnelle tey moom population bi dañ leen di delloon jukal Macky de dafa bëggul woon a dégg waaye tey dégg na la population wax nañ population Tëngéej tey jox na pour wan nañu Macky doy na Macky abal ñu am na loo xamante ne xaw mooy def ginnaaw waaye Tëngéej du mës a dañ ginnaaw liñ lay xamal mooy ne na dem. na dem na dem a dem a dem. looloo yoxoon soppi soppi jago bi. ah da ngeen ne Macky na dem na dem a dem a dem. non Macky Macky doy na parce que tey xale yi ñoo jog xale yi màgg nañ avenir xale yi fi mu nekk ni moo nekk en jeu may wax ñi nga xamante ne dañu jóg naan xale yi ku leen yóbbu ci mbedd mi bañ leen mais xale yi dañoo sonn. xale yi amatuñu espoir tey li nga xamante ni moom lañ daan def muy Barça wala Barsax no dootuñu demati Barça dootuñu demati Barsax dañuy jaamarloo ak Macky fii. ci roube national bi roube national ngeen woote tey ma gis ne tey roube national bi réussir na ndax xale ñëpp ñëpp génn nañ yor seeni i bool di tànqal nit ñi kon Macky gars yi tàccu nañ ko na fi jóge nga gis. lii avertissement la de. lii di ñëw le 29 la. le 29 mu neex leen. mu naxari leen dinañ marche incha allah loolu dafa bëgg mu leer ci bopp ñëpp te Tëngéej fii lay déparé nag lu leer laa la wax Tëngéej fii lay déparé parce que Tëngéej ku xa xam xam ne dëkku bañkat la duñu mës a des ginnaaw donc ñu leen di jox rendez-vous le 29 incha allah donc ñu marche mu neex leen mu naxari leen dina leen marche incha allah jërë ngeen jëf. da ngeen li nga xamante ni moom la président wax. waaw ba léegi rek ñu xuus duggaat ci biir nit ñi xool ambiance bi nan la demee parce que lii mën naa ne ambiance la na suñu président Sonko dafa immature ñu amateur ànd ak moom yox la ñu dugg